suñu bopp waaye ñu président amuñu luñ koy contrer wala loo xam dañ ko koy bañe ndax bari na ñu ñu ko wër di ko di yuuxu tey man xam naa ne fi ma jaar ak moom jaaruñu fa ak moom looluy dëgg te moom xam na ko kon ku ko bañ amul fii ku pare pour rendi ko amu fi waaye ay gor ak jullit nag ñoo fi nekk ñoo xam ni buñ taxawee ñu bëgg tuumaal as gor dinañ wane ni lii d'accorduñ ci jàmmi réew mi daal Papa ngañ ci benn loxo la nekk lu ci ñaar loxo boobu xam nga mooy kan il s'appelle ki Sall bu defoon déclaration bu leer teg ay actes yu su ba nit ñi xëy liggéey. nit ñi nit ñi de ñu ngi am na ci ñuy liggéey fi mu nekk. waaw xam nga loolu la ñuy ñaan. Mhm. man de su ma sañoon looloo ma yóbbuwoon Touba. Mhm. bëgg nit ñi liggéey. Mhm. parce que man du ma daw sama benn responsabilité. man Ousmane Sonko gënaluma réew mi réew mi moom ma ko gënal loolu laa wax. malgré li ma koy defaan te loolu laa gëm billaahi wallaahi taala loolu mooy dëgg sax yaa ngi dëgg waaye nag injustice demee ba fës mën naa yàq am réew te singili giñ singili Ousmane Sonko réew mi yëpp xam nañ ni dafa fës nañu ànd ci dëgg ñu nawlonte ñu respectente ñi ngeen di waxal duñu ay analphabète ci université yi gën a rëy ci àdduna bi lañ jàngee ñëw réew mi bu ñu bëggee régler problème réew mi xiif amu fi mar amu fi problème bi fi am mooy ab justice boo xam ni dafa créer doute ci képp koo xam ni gor nga te loolu ñun waxuñu ko ay juge ñoo ko wax juge dem moo taxaw fii démissionné ñu ne ko lu tax nga démissionné mu ni dama démissionné ci justice bu démissionné réew xoqatal mosu ko réglé réew jàpp nit tëj ci kaso mosu koo réglé réew li ko mos a réglé mooy ay loi li ñuy tuddee les règles du jeu règles du jeu yooyu ku ko bafoué foo mën a nekk doo nekk ci jàmm am na benn waxkat bu mag bu ñoo Hegel day wax ni la paix c'est pas un mot jàmm du lu ñuy wax mu ni jàmm mooy lan c'est mode de vie la loolu yaa effort ba effort ba ñi da ko daan wax kon nañ dox ci jàmm jàmm ñëpp ko xam réew mi lu fi indi jàmm tey ñoom ñi ñoo la ko gën a xam mooy may Ousmane Sonko jàmm parce que ay ndaw ñoo ànd ak moom mu jaral leen dee loolu mooy dëgg nañ nangu dogal yàlla nangu dogal yàlla yàqul dara waaye gëmloo Macky Sall ni ko bu Ousmane Sonko jëlee réew mi tey àdduna bi tukki tey réew mi yow ñu jox la ko ci carte nga ni keneen du ko jël ci carte lépp lu am ci réew mi yow yaay responsable man lii laa gëm. crise bi nag pour man dama bokk ci ñi gëm ni dañ leen dañoo war a accompagner réew mi mu génn ci loolu laa gëm waaye nag mu tegu ci dëgg. Hmm. Cheikh El Hadji Abdou Aziz sama sëriñ. Hmm. sama référence. koro Mauritanie ak senegal bi ñu jotee dafa wax bu am solo. mu ni jàmm ji ñuy wax ci diggante Mauritanie ak senegal yàlla na tegu ci dëgg ndax mu sax. papa ngañ lépp lu tegul ci dëgg du sax réew mi gor ñi ñoo sonn tey lii ngeen di def senegal daf ko dépassé xoqatal nit ñi tiital nit ñi wutal nit ñi ay dossier jàpp leen tëj leen gor ñëpp mais du tere nit ñi même bu ñuy dee dinañ wax liñ xalaat lii mooy dëgg. fii ku leen bañ amu fi mais ni ngeen yoree réew mi la góor ñi d'accordatul mon frère nañ waxtaan Sénégal ñoo ko bokk dossier yi ay caaxaan la nit mënoo koo toppee viol menace de mort mu yor ñaari soxna di chef de parti nga xëy ni violewul deful menace de mort ni da koy tëj ñaari ati kaso loolu du justice leneen la bu ñu naxante yaa ngi dégg fii moom bu dee ñetti nit sax dinañ fi nekk di wax dëgg parce que ñun sunu deret yi dafa am lu muy bañ ñun sunu maam yi dañoo jaamaarloog tubaab yi ba génn leen fii ndax dëkk ñi fi nekk ay héros ñëpp dañ leen a mus a jaay doole ñu taxaw jaamaarloog tubaab bi amuñu nag arme bu ñu xeexee tey man man aw ma ko mais li ma li ma am mooy li sama conscience di joxe ma di ko wax lu ma ci fekk ma assumé ko man ay nervi mënumaa xoqatal rey leen nit ñi bu leen da ngeen rey ñëpp ne dinañ wax li xalaat kaso mënul xoqatal fii kenn ku ngeen tëj day dem toog ba ngeen tijji ko mais nit ñi dinañ wax liñ gëm bala ñoo faatu réew mi ku fi gor xam nga ni lii du justice man lii laa gëm te waxuma ko ci ay plateau ah. ku ma toogal man président xam na ma bu baax xam na ne ñii di ko wër di ko di coow nii gënuñu fi ma jaar ak moom jaaru fa ñoom mais man sama conscience moo d'accordul ci lii dafa dépassé mbirum politique. nañu toog ñu waxtaani réew mi réew mi kenn rek bu amee jàmm réew mi am jàmm jëmm jooju mooy Ousmane ko du fi ñaari nit te amu leen ak problème kenn kenn ngeen amal problème ni wër ta jot réew mi parce que jàpp ngeen ni bu ko jotee àdduna tukki loolu dafa ëpp. d'accord dellu leen ginnaaw parce que lii du ngeen ci am ndam même bu ngeen defee ay pexe traqué waat nit yow yow situation bu tàndee nii ngay wër di traqué di jàpp nii ba pare ni jàmm nga bëgg nañ waxante dëgg. boo nee jàmm nga bëgg kay da teg lépp ci suuf may chance ñi nga xam ne ñu ngi jóg di dox ñoo ñu mën a am courage jóg dox pour jàmm am. réew mi ay forces occultes yi ñuy wax amu fi. d'accord loolu j'assume. papa ngañ mënuñu laa jox am réew. dénk ko jox la ay moyen nga ni woon mois de mars ay forces occultes fi nekk boobu ba léegi yow jàppoo force occultes yi. bàyyi ba réew mi tasaaroo nga naan nga naan ay force occulte ngi fi nañ ñu respecté même bu fekkee ni am na. ci parce que ci wàllu race loolu moom dëgg la papa nañ waxante ah, dëgg. non loolu moom dëgg man de bu ma naree toog ci kanamu Sénégal. boo ko waxee 2021. waaw vraiment 2023 war nga ko régler. waaw ak moyens yi nga xam ne réew mi am na ko. ca dëgg-dëgg. kon nañ ñu respecté. d'accord nañ wax nañ dimbali Macky bu mu nangu ko ko jàpp oto. ok Macky am lu mu def ci réew mi loo mën a wax. d'accord bu dee bilan matériel man dama gëm ni am am na ko. Mhm. am na parcours. mais ab dossier boo xam ni ñëpp xam na ni caaxaan la mu nar a yàq sa sa liggéey Macky Sall bul nangu loolu ñii di la ko ji jaruñu ko. d'accord bul sacrifier sa bopp sacrifier leen. tey jii ñoom ñii nga xam ni ñu ci bari ay dossier lañ yor. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ci réew mi ay dossier ñi ko wax ay magistrat lañ. dossier yooyu nañ ko génne xam ñi nga xam ne dañoo yor alal réew mi te ay magistrat wax ko. Mhm. Sénégalais yi loolu la ñuy xaar. d'accord dossier Covid Covid bi. ñi ko yor nañ ko génne ñu xam li ci nekkoon lan la. mais singli benn nit rek ñetti weer yu ne nga ni Ousmane Sonko mooy wuy ji yaakaar ni loolu day am jàmm du jur jàmm. Imaam merci beaucoup jërëjëf. Ah, merci papa Imaam ah. gis nga ni mu la dégloo de. man li may wax dafay dëgg ci sama deret lay jóge moo mais Imaam. sama xol lay jóge man waxuma pour calcul. Imaam bu ma génnee fii lu ma ci fekk ma assumé ko mais yàlla rek moo tax. ma Imaam Imaam. Ah. xam nga lu ma lay ñaan. nga déglu ko mu wax ba pare. na wax allez voilà alors euh, monsieur le maire. <clears throat> Imaam teg na ay conditions yu mu jàpp nii. bu buñ ci génnee mën na di jàmm bi ci jiitu ñi nga xam ni tëj nañu leen te jàpp na ni defuñu dara nañ leen génne loolu wax na ko euh, euh, par exemple nii ñu nekkee euh, ci kër Ousmane Sonko blocus bi nga xam ni teg nañ ko fa nañ ko fa teggi président Macky Sall bi wax ni mënul nekk kandidaa na ci génn je pense que yii la imam wax ndax jàpp nga ni yooyu bu ñu ko jëfee dina indi solution ci réew mi réew mi am dal. dinaa la dinaa la décevoir parce que caaxaanar yi laa ko jàppee li ma wax pour être cru vraiment vraiment Sénégal je suis désolé naka ngay toog ay nit yu am xel nga ne leen génne leen ñi nga xamante ne ñoo toj réew mi sàcc alalu jàmm taal ay université taal ay bibliothèque taal ay institution nañ leen leen génne. ak ñiy yor xaalis di fay ay sénégalais naan leen bu bërëb sàppam bërëb sàngam tàkkee am ngeen am nangam woo ay xale naan leen lu tax seen koñ tàkkagul nekk bitim réew xam ne ils protégé di yónnee xaalis fii ñu jàpp leen te pare te am na lu des nga ne yow pour jàmm am ñooñu nañ leen génne benn xalaatoo bitigu jaaykatu téléphone bi yi sàcc xalaatoo banque islamique souvent tali bu mag toutes les banques dix huit institutions bancaires bés bu nekk ñu ne tey bii tojagul nañ ko toj nga ne ñooñu nañ leen génnee. waxuma ñooñu de ñooñu dañ leen war a jàpp man ku toj banque. du ma la protéger. d'accord li nga leeral loolu. c'est important non non mais jeex na. imam li nga leeral kay c'est important. Ah, ah. léegi eggaleel s'il ñoo fees ci kaso bi. Mhm. ak nga xamante ne jàpp nañ ne ñoo leen doon ñoo di manigancé ah. di leen. di leen financé. ak ñi yor discours xëy na bu bokkul ak discours bii muy woote jàmm bokkul ak li président Macky Sall doon doxi ci xalif général ñooñu c'est les ennemis du Sénégal c'est les ennemis de la République ñoo fees ci kaso bi nga ne nañ leen génne après waa appareil yi doon def menace Ousmane Sonko ñu dugale beneen bi mooy Ousmane Sonko mënu nekk en tout cas candidat par rapport au dossier Imam Mbaye Niang waxuma sax bu Adji Sarr Mame Mbaye Niang waay Mame Mbaye boobu déjà non non boobu kay mi wax ni mënul nekk candidat. oui xam nga non non xoolal imam yooyu tam. <laughs> imam ki nga bàyyi ko rek man du ma koy wax li ma si xalaat. Ah, allez-y ah attends. xam appel. voilà c'est ça. parce que man dama jàpp ne boo defee désobéissance civile. ou civique. mais néanmoins def na appel. waaw je sais. Ah, waaw dama jàppoon ne deful appel. ndax faalewul justice. ok mais comme jaar na ci suuf ba def appel nañ xaar appel bi. su daanee appel bi na ñëw compétition comme ça ma am lu ma bëgg. mooy jàmmaarloog moom ci élection. nga ne kooku nañu fexe mu bokk. Ah, loolu wax na Macky Sall bi nga condition yi waaye. waaw nga ne Macky Sall bi nga xamante ne moom mooy président de la république majorité sénégalais bi ànd ak moom fal ñun ñi ñu bokk ci nga ne ñun ki ñuy yéene mu nekk candidat continuer ko nga ne kooku nag génn pour jàmm am. koo yàpp te constitution Sénégal de manière claire may ko. maanaam waxi Macky Sall man fële laa ko teg waxi Ousmane Sonko fële laa ko teg bu Barthélémy bu Pam Gagne bu Dramé bu Diarra mais la constitution générale c'est pas le débat gëm naa ne mën na nekk léegi nag Macky waxagul man bokk naa ci ñi nga xamante ne nee naa ko le peuple sénégalais entier et même l'espoir de l'Afrique si ce Macky Sall laa kii bu bu toog ma jàpp ne constitution Sénégal bii limité mandat yi baaxul dama jàpp ne adduna bi fii ñu toll complexe d'infériorité bi ñu am devant ces intellos yi jaar ci plateau yi naan ñu. les pays africains dañoo war a limiter les mandats. léegi non non xam nga nga tontu ci ay ay proposition baax na mais ngay indi sa ay solution su bëgg naa ko je suis je suis très structuré. waaw damay tontu ci bosam indi samay proposition yu claire allez-y. donc mhm. ñooñu di wax affaire wu limitation de mandat man sama principe personnel. Mhm. mooy c'est des complexes de l'Occident. nañ dem ci Russie Poutine ñu ne ko defal limite wala ñu dem ci. Rwanda euh, Rwanda wala wala Turquie Erdogan wala ñu dem. Allemagne la première puissance européenne ñu wax ko limiter le mandat nous avons des pays africain yu ñu war yóbbu au développement on n'a même pas de satellite internet bu ñu ko mayee du ko am renseignement sécurité dëkk sécurité militaire bu ñu abalul renseignement duñ ko am amuñu une banque africaine pour financer no développement unie amuñu une armée unie pays bu France bëgg dóor dugg na Libye dugg Afrique dóor dem yoonam mais attends l'Afrique pour que doomu Afrique génn ci complexe boobu dañu war a tëju seen biir am seen doole tabax réew mi les autoroutes les infrastructures de développement jokkale réew yi af ni ni mu tabaxee pont bi Gambie nga jóge Sénégal taal sa oto ba dugg biir Gambie def ko ba mun a dugg Mali Mauritanie Guinée et cetera pays bu nekk def ko ñu am unité africaine jàkkaarloog États-Unis jàkkaarloog unité de l'Europe enjeu yooyu la ñu toll loolu il faut que ñu am sécurité il faut que mu am sécurité dëkk bi pétrole génn gaz génn nit ñi bëgg a lekk Sénégal pour tas réew mi am ay doomu Sénégal yu lëkkaloog ñoom ce que la police effet fait du ko wax ci biti ñi ñuy jàpp nii pour ñu jàppaleel du loolu ñu lëkkaloog waa Pastef te dangereux te bëgg Sénégal disqualifié wu disloqué wu toj ñu dikk négocier ay pétrole ñooñu. la état Sénégal amal affaire du ñii. billaahi wallaahi. la police sénégalaise est très sérieuse. li ñuy def métti na. di wàcc ci tali bi. maa ngi koy wax sànq ci journaliste yi ñu li ñu bëgg c'est justement Sénégal université gëm nga ne étudiants yi ñoo ko taal. un temple du savoir nga bokk fa bibliothèque universitaire képp kuy étudiant jaar fa di fa ji di nga gis étudiant ak 100 francs mu def ko. ils sont très bien organisés pour indi la chaos Sénégal moo tax ma yërëm état du Sénégal. parce que xam naa ñan la ñu amal affaire fu toll nii te waxuñu ko ci kaw. dañ def très bien attention. da nga leen yërëm parce que dañu mënul fair face wala da nga leen yërëm. parce que ñoo ngi faire face. Pape da nga amul ma aw ma rek te yooyu buñ ko doon am doo ko dégg duma ko dégg ils investissent ils investissent gis ci kaw fii yaakaar ne. Euh, non yërmande bi laa. waaw comprendrewul quoi yërmande bi nga am ci état bu Sénégal la mooy yërmande bi mooy li ñuy jàmmaar loolu nelawutuñu. parce que li nekk ci frontière daf leen ëpp doole quoi daf leen ëpp doole. déedéet dama ne ñoo ngi ci bés bu nekk. ba tax tey ngay mën a ñëw fii woo ñu ñuy def. Ah, plateau ah d'accord ok. liggéey boobu moo gën a rëy. d'accord ok liggéey bi ñuy def ci frontière yi. coono bi ñuy daj pour régler coono bi ñuy daj pour régler loolu te siwaluñ ko. ñu war leen a muy ay sénégalais amatuñ njaboot nelawutuñ guddi <laughs> ñooñu la ñu war a yërëm nekk au service du peuple. ñu bëgg leen indi te ne c'est une manipulation des li ñuy wax ne loolu du loolu loolu mooy gosse bi def na erreur comme ni mu ko waxee booyam bi def na erreur indi na lii léegi man solution man. waaw damay ñëw fii léegi sëñ Amsatou maa ngi koy nuyu sëñ Amsatou Mbacke bu sëñ Soubérou bu maam Thierno Ibrahima gannaaw suba la waroon def ay santam murit la surtout Serigne Touba waaye premier jour yi Tidjani la ko jagle xadara deuxième jour yi Baye Fall yi doog nag sant maam Thierno dàq nañ ko dàq yi dafa rëy boutique yi tëj ñu jëm tabaski. comme contexte corona bi gaa yi jëloon laxasu ci contexte bi tamit daa mel ni bu corona bi pam ngañ je te fais une réflexion tabaski bii ñu jëm dans une vingtaine de jours góorgóorlu bu nekk da ne su ma demee toj fi am lu ma yóbbu kër ga ñu boole kook lii c'est un contexte très sensible damay bañ nag mu yegg ci tar-tar bu toll ni ñi fay indi xar yi jóge yeneen dëkk ba ñu ñëwati ñu dund Sénégal bu gars yi di sombi tabaski loolu nag am na ñu am plaisir ñu koy bàkkoo ne ñoo tax lii tax suñu wootee jàmm d'accord naa ci. Ah, benn jëwriñ sëñ Moussa Newel dafa ma woo ne ma moo ngi dégg ci TikTok yi ñuy manipuler naan sëñ Moussa Newel moo tax Macky Sall gisewul ak xalif bi moom nee na Macky Sall gisee na xalif alhamdulilah. seen manipulation yi kooku nee na ma boo demee ci plateau bi neel sëñ Moussa Newel nekk foon sax génn. na ma tamit tegal ma ci ne Macky Sall ak sëñ bi bu tedd bi ñoom ñaar rek a fa nekk. gannaaw yàlla keneen duggul bay mun a xam luñ ñu fa wax. bu fekkee pour régler situation bi la ak échange d'information jël ay décision j'applaudis bu fekkee diggante seen relation personnelle la. du relation personnelle. voilà dafa dem parce que réew mi dafa amatul solution. d'accord ah, allez-y monsieur le bañ demee ci kanam vous allez vous réveiller. xam ne vous vous trompez lourdement. alors li ma bëgg mooy. Mhm. <laughs> solution boobu de médiation sociale d'accord naa ci. pour kii toog ne faalewul kenn. ñu woo ko dëgg ne ko faaleel nit ñi sama roomu gor yi dem ci dialogue bi gënoo leen Ousmane ko gënul xalifa Sall. Hmm. Idrissa Seck du moroomam ci histoire ci parcours ci expérience ci niveau ci compétence ci relationnel ñoom ñëpp dem wuyu ji en respectant la République. Hmm. Idrissa Seck ñaata at la la la la la nekk ci politique ak léegi 88 lu mu deful prouesse su mu deful tey mu ñëw xalifa Sall benn jamais parti socialiste bokk na ko. Hmm. am parcours yu sain. bañ biir parti socialiste mu bañ fa ba génn yor li yor ak ñu topp ci moom ñoom ñëpp nangu ak kilifa yu tedd yi fa demoon daw ngay kenn di utiliser un bouclier humain par des communication de de manipulation pour jéem a tas réew mi ça ne marchera pas li ñu ko war a wax nag mooy kaay dëgg dialogue bi mu wootee nañu wax seen waajo kan moo wootee dialogue bi il faut tamit bu ñu manipuler kan moo wootee dialogue peut-être woote kan moo woote dialogue ñun ñun nekkuñu ci benn position de faiblesse bu ñuy wootee dialogue ñu toog waxtaan. waaw wax ci ay bi mu woote. dialogue bu dee am na kenn ku ko war a woote ci réew mi mooy Macky Sall. mais mais Oustaz Labe yaa ko wax fii léegi yaa wax ne yow. solution mooy ñu toog jàmm laa woote. réglu rek bul def manipulation. mais ak. ja xam nga xoolal déglu wax nga dëgg ñun dialogue boobu ngeen di woote ah, ñëwuñu ci ah, te assumé nañ ko ah, mënu leen a jàpp waa Pastef yow da nga tuuti sax ci wàllu dialogue Sénégal yaa ngi dégg donc pour pour pour donc pour ñuy dem ci dialogue solution dialogue boobu ñëwuñu ci loolu wax nañ a jël ci institution bi benn affaire parrainage war nañ ko waxtaane ñu waxtaane ko processus électoral bi ñu waxtaane ko ñii nga xamante ne nee nañ bu ñu bokkul taal réew mi bu ñu bokkul taal réew mi ña ca nangu ñëw moom ñu nguufaan ko indi ko mu bokk par force. caaxaan loolu ko demee waaw comme nee na <laughs> kilifa yi ndigal ñu ko joxee ndigal duñ ko ñaan day def mais ñaan kilifa yi wax ko nee ko sëñ bi demal fekk sa nawle homme politique yu Sénégal yi. da parti ñu yor parti demal bokk ca la nga xalaat nga wax ko fa moom ak ñi bañ ñëpp. que ce soit Bougane euh, les les Abdourahmane Diouf les euh, euh, ñeneen ñi ñoom ñëpp ñu dem toog li ñu bëgg a wax ñu wax ko fa seen point yi leen intéressé ba ci libéré bande yi sax bu la neexee nañ ko fa waxtaanee pour ñoom ñëpp ñu ànd ci dog ba génnee benn consensus pour dalal Sénégal yi jàmm man loolu laay ñaan. te lool pour ñu def ko par rapport ak ñi nga xamante ne am nañ ay ay inéligibilité. nañ député yi député Ousmane Sonko yi ñoo koy faj. te bu ñu amee consensus bi comme Kéba Mbaye ni mu ko defoon en 92. homme politique yi waxtaanee ko ba pare formuler ko en loi. moo xam article L 29 article L 28 et éventuellement article L 57 du code électoral bi bi bi teree seen droit d' inscription pour ñu bokk.